L'Ergue TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين amma baad bokki jullit yi maa ngi dénk sama bopp yàlla di leen ko dénk ñu xam ne fii jamono toll ci ay waxtu yu lëndëm ak ay bis yu jafe ak ay jamono yoo xam ne nit ñuy nuru nurulu ay kilifa di nuru nurulu ay njiit te matuñu lañuy ñuy wootewu moo bari lool li borom bi naan yuhibbuuna an yuhmadu bi ma lam yafalu ñoo xam ne dañuy bëgg ñu teg leen fu ñu wëtt a tege dañuy bëgg ñu di leen gërëm di leen sant ci loo xam ne defuñu ko te ku xàmmeewul mën nañ laa wor moo tax dana aajowoo ñu fàttali ay jëmm yu fi jaaroon ci lislaam yu dëggu yu nekk ay misaal yu mag nekk ay boroomi yitte yu kawe nekk ay boroomi xol yu gëm yàlla ngëm yàlla gu dëggu ñi fàttaliku ñooñu ngir ñu teg leen ci suñu kanam def leen ay royukaay di niitu ci seenu doxiin ñooñee la borom bi tabaraka wa taala di melal ni gëm yàlla nee na ñi gëm yàlla day am na ci ay gaa yoo xam ne dëggal nañu lañu kóllërante woon ak yàlla ci gëm ko te jaamu ko wéetal ko ñu ko boole ak dara topp yonent bi mu yónni mu ne ñooñu day am na ci ñoo xam ne jóge nañu fi am na ci itam ñoo xam ne ñi ngi néggandiku ñi ngi fi waaye nee na sensé wuñu dara ca pas-pas bañ yoroon ñooñu nag ka ca jiitu mooy aboubacarin sadiq radiallahu anhu aboubacar mi nga xam ne bi wax wi gi wàccee ci yonante bi salallahu alayhi wa sallam mu tàmbali di woote ci ndigalu borom bi jëmm ci diine lislaam ki nga xam ne moom la njëkk a tànn ci mu kàllaf yi ci jottali ko woote boobu mooy abu bakrin saddiq fekk na ab àndandoom la woon lu jiitu ñu koy yónni waaye yonente bi sallallahu alayhi wasallam xamoon na ko ci jikko yu rafet xamoon na ko ci jikko yu tedd moom itam xamoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dëggu ak wóor ak ay jikko yoo xam ne dox na digganteem ak di wax nit ñi lu amut kon nag naka moog digganteem ak boroomam bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamalee wooteeg lislaam bi fa saasa rek la daal di dugg ci lislaam amul genn déng-déng amul wenn waajtaay fa saasa rek la daal di wuyu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci lim ko wop motax tax yonente bi alayhi salatu wasalam ne mbir mi di diine ji day garul mako kenn ludul amna ci ak naasu akub néggandiku akub deng deng tuuti lu abou bakar mune mom de ko ko garale fas rek lama daldi deugal di dëggal di li nga xamne mom la borom bi tabaraku taala waaye ba mu duggee ci lislaam yemu ca waaye da caa wéy di ca woote ba ci ab wooteem la ay tànneef duggee ci biir lislaam ñoo xam ne bokk nañ ci al asratul mubashara bil janna ku mel ne subayru bnul awaam usman bnu affan talxatu bnu ubaydillah سعد بن أبي وقاص عثمان بن مسعود وأبو عبيدة عامر بن الجراح عبد الرحمن بن awf wa abu salamatu bnu asad wal arxamu abil arxam ki nga xam ne këram la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defoon danuwaayu lislaam ca njëlbéen ga ñoom ñëpp radiallahu anhum ak ñeneen yonente bi ali ah, abu bakar radiallahu anhu ñooñu ñëpp mu woo leen ci lislaam ba ñu wuyu ca mu andi leen ci yonente bi sallallahu alayhi wa ñu dugg ci lislaam jaare ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa Aboubacar jamono boobu nekkoon na koo xam ne day yaxantu ba am na lu ko yàlla wërsëgaloon ci alal waaye alal jooja lépp da koo dépensé ci yoonu yàlla lam ci njëkk a def mooy di ca goreel ñoo xam ne dugg nañ ci lislaam waaye booba ñu nekk ci kilifteefu ñeneen nekk ci ak njaam nekk ñu néew doole Aboubacar jënd na ci ab lim ñoo xam ne ña nga leen doon mbugal bi ñu duggee ci lislaam ña nga leen doon sonal te ñooñu ka ci jiitu mooy Bilaal ibnu Rabaah abou aboubacar nekkoon na koo xam ne kuy dëggal yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la ci lépp lu mu wax li doon màndargaam daal mooy su fekkee moo ko wax rek loola dëgg la ci xew xew al isra wal miraj muy bi ko suñu borom tabaraka wa taala rañaane moom yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi ko bokkaalekat yi yéefar yi yëgee dañ ne nag lii de moom tey occasion la boo xam ne xanaa lii moom bu ko yëgee nag ak lu mën mën a dëggal waayam ji xanaa lii nag moom du ko nangu nag moo tax ñun ñëpp dañoo daal di njëkkante ñëw ci moom ne ko yow xanaa yegoo li sa waa ji wax moom di nee na biig dañ koo rañaane muy dem baytal maqdis jóge fay yéeg dem ci asamaan yi delsiwaat lépp ci biir guddi gi aboubacar gestu la ne leen ndax ndax moo ko wax awa xaala zalik ñu ne ko moo ko wax kay mu ne su fekkee moo ko wax rek dëgg la ndax man maa ngi koy dëggal ci lu gën a sori loolu muy xibaar bi mu may li toujours mu jóge asamaan suba ngoon mu naan yàlla nee na maa ngi koy dëggal ci loolu ci loola ñoom ca lañ tàmbale di ko wooyee as-siddiq dëggalkat bi nekkoon na moom abubakar radiallahu anhu ki gën a tabe ci saxaaba yi bokk ci ñi ci dàq jaamu yàlla waaye ñi ci mën a gën a jiitu ci aw yiw ci lépp lu baax kenn daawu ko ci jiitu muslim soloona ne yonente bi sallallahu alayhi wa Ladna sahaba saxaaba yi bis ne kan ci yeen moo xëyaale koor abubakar ne ah man de koor laa xëye mu ne kan ci yeen tey moo ab néew bu ñuy robi abubakar ne ah man de loolu tey def naa ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne kan ci yeen moo leel tey miskin abubakar bakar ah man de def naa ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne kan ci yeen moo seeti ku tawat Abu Bakar la ah man de def nako ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne mbir yoy day du daje ci ab jaamu lu dul mu dugg janna Omar ibn Khattab radiyallahu anhu mi ngi wax ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf no digal bis nu genné ay sarax neena mu dajeeg ma yor dara neena na tay da mom Abu Bakar lim may man jitu ⁇ jitu dana ko jitu tay neena ma daldi xaj sama genn wala alal daldi andi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ma lo fa bayil sa njabot ne ma ne ko lu tol ne li ma andi nee na bakkar dal li ñew mom andi lam yor lepp yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lo bayil sa njabot mu ne ko dama leen baye ak yalla ku yonentam omar ne wallahi man day abou bakkar abou bakkar radiyallahu anhu doonoon na kii gën a xam ci saxaaba yi ndax taxoo gi mu taxoo ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te ba mbir may doog a tàmbali ba ni fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jógee mësta taqali koog moom boo doonoon na ci ñi ci gën a mën a jàng téereb yàlla bi doonoon koo xam ne sax mokkal na ko loolu taxul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko pour mu jiite saxaaba yi te loolu la cay tegtal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne kii jiite nit mooy ki mën a jàng téereb yàlla bi te comme def na ko njiit rek kon li muy tekki moom bokk na ca wala doon nag ka nga xam ne moo fa gën a mën a jàng bi yàlla bi doonoon nag ki nga xam ne itam moo gën a xam ci saxaaba yi sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam gën koo dégg ba daanañu del si ci moom su ay xew-xew amee yoo xam ne xamaguñ ca lu cay atteb lislaam bu ñu del see ci moom lamu leen cay wax dana doon loo xam ne lu seen xol di nangu la lu seen xel di dal la bokk na ca liy tegte la loolu bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam genné aduna sahaba yi ñu bari mbir moomu andi te ci ñoom wax day mel mbir mo xamné ne ko wala buñ ko fogo ni bet na leen aboubacar bi ñewé fekk yonente bi sallallahu alayhi wasallam fiñ ko sang mu dal di koy muri dal di koy fon dal ne ko bi abi anta wa ummi ma ngi lay jotté samay baye ak sama yaay ya rasulullah ne ko faatu gi suñu boroom tabaraka wa taala dogal ci bindee bindeef yëpp te nga bokk ci mu dogal ko ci yow day moom nga faatu nii dal di génn nag fekk nit ñi jaxasoo coow li bari lool waaye bi ko nit ñi séenee rek ñëpp dañoo daal di ñëw wër ko moom Aboubacar mu daal di sant suñu borom tabaraka wa taala tagg ko daal di yéem nit ñi koo xam ne Muhammad nga doon jaamu xamal ne kon Muhammad tey faatu na koo xam ne nag yàlla nga doon jaamo xamal ne yàlla moom mi ngi dund te du fi jóg benn yoon dal di jàng aaya bi suñu borom waxoon wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul muhammad mii day ab yonent la boo xam ne yonent yi jiitu woon nañ ko afa in mitta afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum mo ndax bis bu ñëwee mu génn aduna da ngeen di delluwaat gannaaw ca la ngeen nekkoon wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'a ku defé né diiné ji ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam la yam ba su fi nga japp né jeex na bëgg déllu ci la nga nekkoon nee na loolu di wa def mom du wàññi yalla dara wa sa shakirin yalla dana fay nak ñinga xamné ñom ñoo des ca diine ja sant xéewal ak suñu borom tabaraka wa taala andak ak xam-xam bobu mu amoon ak degg gogu mu amoon ci l'islam yépp teewul mu daan wax ne san asaman momay may tim san suuf laay mën a taxaw su fekkee maa ngi wax ci téere yàlla bi loo xam ne sama xalaat laa ciy waxe gis nga kon ñoom ñi ñu sàmmonte woon di wax ci diine dara loo xam ne amuñu fuñ ko sukkandiku ci alquran ak wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak li muy jege yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak li muy dégg diine lépp waaye lépp daf koy delloo ci alquran daf koy delloo ci sunna nee na daal kuy wax ci diine ji loo xam ne sa xalaat dong la nee na yow day xaw ma asamaan su lay tiim wala suuf sooy war a taxaw loolu kon li muy tekki mooy mbir loolu mbir mu diis la aboubacar sadiq nekkoon na ku sàmm umul muminina aïcha radiallahu anha di doomam di soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon benn benn xulaam seen ngóor soo xam ne ci ñi mu yilif la am lu mu koy sase mu di ko war a liggéey di ko ko indil loole muy liggéey nag Aboubacar ca la daan jënd li muy lekk nee na mu andil ko dara bis yonente bi Aboubacar jëfandikoo ko kooku ne ko waaw ndax xam nga lii ma la jox fu mu jógee ne mu ne ko déedéet fu mu jógee mu ne ko man de ba ma nekkee ci ceddo gi dugguma ci lislaam damaa seetaloon benn waay defal ko ceeb te nee na sax seet sax mënuma ko waaye même ceet sax ku ko man sax it nag taxul la ngay def dagan te ceeb sax kenn mënu ko ndax jéem a xam xay bu moom xay bu moom suñu borom tabaraka taala rek ko xam qul laa yaalamu man fi samawati wal ardi al xayba illa allah waaye mu ne dama ko nax rek nee na nag mu dajeeg man bu yàggul nag jox ma dara ca la ma ko seetaloon mu ne ko lool day ci laa la andi lii nga lekk tey ci loolu la bàyyi ko nee na aboubacar dafa dugal loxoom ci gémmiñam di looju di looju ba génne mboolem lu nekkoon ci biiram xam ngeen ne kon kooku samonté gi mu doon samonté gu mat sëkk la dund bakkar radiyallahu anhu lépp ay bind la ndax moom ñooy ñi nga xam ne ñoo njëkk a dund lislaam ñoo sës ci yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam jëlee njàngaleem lislaam ci moom di jëf ci kanamam mu di leen gis lu ñu def te mu la mu wuteeg ak lañu war a def yonente bi da leen di jubbanti fa saasa kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku dund lislaam ci kanamam ba mu joge fi limi muy tekki mooy yow sa islam islam bu wér la moo tax bi sallallahu alayhi wasallam dénkaane ne ngeen len roy bind yu bari man nañ ko jele ci dundam bobu waye ci gattal rek lañ ci ñëk jele moy nangu gi mu teel nangu dëgg bi dëggu leeree ci mom am ak ne wuté nag la société bay dund lool ak la ca la rapp ci ay sanction coono yuñ la cey tek société bi dund lo xam leneen la am ku ñew wote dara ndax ka ko woote sax nit ñi mën nañ koo jàpp ne xëy na moom daa bëgg ja wala daa bëgg nguur moo tax muy woote lu wooteeg li nit ñi nekk waaye yow ma ko topp nit ñi dañ lay jàppee ko ñàkk fayda wala ku ñuy yóbbaale waaye loolu lépp moom seeti ko ba mu gisee ne li mooy dëgg rek dafa daal di défier société bi yépp daal di topp loola ñaareel ba itam jox gi mu jox boppam diine jooju ak alalam ak njabootam lépp def ko ci service l'islam ñetteel ba itam sàmm gi mu sàmm woon ak toroxlu gi mu doon toroxlu wàcce gi mu doon wàcce boppam ba gisul woon ne moom am na ngëneel ci kaw kenn doonte ngëneelam rëy na lool ngëneelam màgg na lool lu ko borom bi tabaraka wa taala jagleel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tuddal ko ko alquran sax tuddal ko ko ci alquran suñu borom tabaraka wa taala di wax ne is yaqul li saahibihi la taxsan inna allaha maana yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkee dugg ca xaaru mook Aboubacar mu ko de wax ne bool jàq li saaxibihi kon yonent bi alxuraan saxalal na ko suxbaam àndam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ca itam sax gi sax ak dëgër gi mu dëgër ak teg gi muy teg lenn lu nekk ci barabam li muy fonk fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxul nag mu jaawale ko yàlla wala mu teg ko ci place bu bokkul ba mu ko war a teg moo tax mu wax nit ñi ne leen man kaana yaabudu muhammadan fa inna muhammadan qad maat ndax nit ñi léeg-léeg sentiment da leen di jàpp ak seeni yëg-yëg ba tax léeg-léeg dañuy bëgg a teg mbir fu mu war a tege ànd ak fi mu teg yonente bi sallallahu alayhi wasallam lépp nag teewul mu xam ne jaamu moom suñu borom tabaraka wa rek lañ koy def yonente bi sallallahu alayhi wasallam ab jaam la bu doon jottali jógee na fi waaye yàlla mi nga xam ne nag moo bind jaam ñi ñu war koo jaamu moom mi ngi fi moo tax moo dëlloo si waat saxaaba yépp ñëpp fàttali ko waat aaya boobu mu leen fàttali kon nag mbokk dañuy jàngaat dundu sahaba yi ridwanullahi alayhim di leen fàttaliku loolu kat dana tax ñi nga xam ne dañuy jéem a seen bopp ci kanamu nit ñi li yasuddu an sabilillah di baare nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yàlla ñu jàpp ne ñooñu ku leen fi romb wala ku leen topput nekkoo ci diine te fekk na royukaay ya du ñooñu ñii la borom bi taski new ku leen topp wala tabaxuhum bi ihsaan radiallahu anhum wa radu an ñii la yàlla ne ku leen topp te rafetal toppin bi dëgg dugg ci biir ngërëmul suñu borom tabaraka wa taala yàlla na yàlla boole ci ñooñu yàlla yàlla gërëm aboubacar gërëm mbooleem sahabatu rasul salallahu alayhi wa sallam te def ñu ñu bokk ci ñi nga xam ne danañ leen topp bi ihsaan wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain